jaawale sax poids lourd yi hmm. yaa ngi dégg hmm. mu arrière hmm. seen catégorie boobu ñoom moustique sax ci lañu nekk voilà waaw ci la arrière daal na man bëreetuma sama tànk day de gars yi ne kon dax lan da ngaa ragal affaire yooyu noonu maa ngi nuyu doon mbarak jour boobu sax moo da ngaa ragal moo war a bëree yooyu noonu xam nga gars yi nekk foofu noonu kenn ku ci nekk naan kii du bëre kii day bëre kii du bëre ma daal di jóg ne àllin ma sër bi si ma toogoon ci jëmi bi daal na mbër ma ma war a ma waaw ma ne ko baal ma bëri ci poids léger bi waajaloo dara waajaloo tous yow ñëw rek gars yi ne nii ne ne nga ne jox leen ma sër bi ma bëri waaw léegi ci laa jàppee gaa yi di daan di daan di daan bi ñëwee ba quart de finale ci la asabala huitième de finale mhm. ci lañ daanee armée ki daan armée laa am quart de finale daan ko daal di ñëw demi-finale ñàkk yaa ngi dégg. Mm-hmm. Hercule daanoo moom itam quart de finale. Euh, boobu Hercule mi ngi yéen rek rek waroon àcc moo tournoi bi. mais finalement euh, moom ak final la ñàkkee ci luur yi. waaw yi su ma juumul Ahmed Kane. waaw Ahmed moom moo bëri ak Farouz. Farouz Farouz numéro 2 bi dëkk Thiaroye. waaw ñoom ñoo bëri final lese bi. Euh, naa ne daal. mbapati nga mbapat fune gaay gars la xel nga def say preuve mhm. d'une certaine manière mën na ne man personnellement mën na né li nga def ci mbapat xaaj boko boo ci arène bi Sénégal gépp lay xamé mhm. mais nak mbapat bi ni nga daan évoluer mhm. ak bi nga duggé ci arène bi yaay une différence arène bi yoon bi dafa yéx am ay gàllankoor am ay jafé jafé yo xamné il faudra yow nga expliquer pour nit ñi mëna a mais euh, Mambala en 2012 fekk say morom am ci ñoo xam ne commencé nañ dugg ci arène bi nga dem lijjanti sa licence ñëw fas yéene dugg ci arène bi pour wane sa bopp parce que jàpp nga ne instant bu am nga niveau pour dem ci arène bi sa premier combat dans l'arène ñu jox la euh, booy ambulance bu écrit euh, caaroy mbooloo waaw boobu jóge naa ca mbapat bi ah. ma daal taxaw nag ndax boobu gars yi ñu commencé bëre arène ah. suñu ay yére ay Hercule ay armée gars yi commencé bëri arène te xam naa ne ñoom niveau bi am man am naa niveau bu tol noonu tamit ndax capacité bi am ci làmb tamit am naa capacité bu toll noon wala ma ëppale leen ko yaa ngi dégg ma daal jóge foofu wax ak ñi nga xamante ne ñooy samay staff man daal damay ut licence bëri yaa ma licence bi yaa ko bopp baa rek ñu doon la utal sa licence soo waree am licence dañ la wutal. Mhm. du kom comme ku ci mel ne Talla Diop. Talla Talla waaw di bu baax a baax a baax ndax yaakaar naa ne moom moo ma utal licence sama carte d'identité tamit moo ci taxaw sonn ci ba carte d'identité bi génn mu utal ma licence. ok yaa ngi dégg. Mhm. chaque jour su ma fee ñëw gars yi bu ñu waajal seen i combat arène man bu ma ñëwee sonn ci buy bëgg a dee. Mhm. yaa ngi ma dem dem ba benn jour ma man man daal. comme mënu leen maa bëreloo arène wala mënu leen maa kii damay bàyyi bëre. ok nga menacé gars yi. waaw ne leen man daal si nga mën leen ma lijjanti ma bëre arène. kon damay bàyyi bëre. waaw ok léegi ci laa waxee loolu fekk gars yi échange boobu am nañ ay 4 combats. 3 hmm. combats 4. Hmm. yaa ngi dégg. Hmm. ma wax leen loolu taal na ma ma ne ko waaw taal na ma léegi garaawul comme licence bi génn na. léegi dañ lay utal combat ñu daal dem ne. waxtaan xaw ma seen wax dañoo waxtaan ñëw naxee ma lool. dama am nga combat man leen kañ. ñu ne ma jour tel. ñu ne sa combat taxaw na. waaw ñu la a tijji. ñu ne ma jour la man leen ah ma waaw. man leen kon baax na ma daal di ñëw yëgle ne am naa combat jour tel. ñëpp daal ne ma ah affaire yooyu noonu ñii ne ah, ñi gëm nañ ñenn ñi gëmuñ. ñu dem a dema a dem a dem ba combat de un mois ñu ne ma combat bi daa yàqu. yaa ngi dégg. maa ngi continué waat sama entraînement. nga nekkaat ci. waaw ma ah. nekkaat ci léegi bi ñu demee dem dem dem ba saison bi di waajal tëj. Hmm. ci lañ ma joxee nag combat maag ambulance. booy ambulance. waaw bu caaroy mbooloo. waaw jour J municipal bu parcelle. waaw dellu si ci film bi. léegi ma préparé nekk tamit ci samay préparation boobu tamit tuuti naa te xale laa. Hmm. yaa ngi dégg dama daan tëdd sax sama yaay xool ma ñëw xool ma ne ma kii tuutiwaayam bii nag ngeen a bëree léegi affaire yooyu xam nga bu ko defee gars yi daan na ah mer kii daal tuutiwaayam bii gis ko nee waaye noonu la lajee affaire yooyu noonu ñu nekk ci sama papa moom itam heure bu daf may ñaanal fajar mu yéema na ma aca entraînement te man entraîné waaw moo la daan yéey sumayewo oh, da dab entraînement suma ñëwé ndeysaan dañ dan defar ndékki sax mu jël lépp na ma am ndékki bi yaa ngi dégg bu heure añ fekk ma dem saal ba ñëw nii yaa ngi dégg su heure añ jotee nii dama tubbal leen ko suñ ko tubbalee loo xamante nii comme maanaam benn bool boo xamante ni ya, man ak ñeneen ak ñeneen ya, ma bu man dong la mais dem indi ko daa mel kii moom moromam uh-huh. lu manqué lu nekk rek moromam bu ko ëppalee dina ko won uh-huh. yaa ngi dégg uh-huh. ma daal ma lekk mais su ma lekkee li ma war a lekk su ma rek na ko suur naa mën gën a ñaaxee ci loolu teewul su may entraîné buy bëgg a dee su ma ñëwee mën a entraîné woo yow man nga di ñëw bu jour bi làmb ji mu woo ma bi ñu su wala ji xaw ma jour làmb ji mu woo ma asabra jour làmb ji mu woo ma daanu ma mbaala mu ne ko waaw mu daanu kaay ma ñëw mu ne ma loo xalaat ma ne ko dara xalaatuma ko <laughs> papa ndax booba moom itam mu ngi natt du xool sama capacité mu koy xool <laughs> yaa ngi dégg <laughs>

su ma yeboo ma mboppat loolu laa bëree ñëw appliqué ko arène timit su ma ñëwee xaj na timit boobaak léegi yàgg na mais sax làmb su ma ñëwee li nga xamante nii mooy li nekk sama est-ce que tu te souviens après bi nga daanee booy ambulant ban geste nga def waaw ban geste nga def geste bi ma njëkk a def damaa daan ambulant daw jubali ci Momar bala ngay dem ci Momar da nga daan ambulant arbitre di sifflé nga continuer ne da nga koy brouet ci t'en souviens ya après bañ tayé après ma dal la ma la asan yow loy def ni mbapat ak arène bokul mbapat mën nga def lu neex mais arène da lay def ben erreur bu ndaw ñu sanctionné la 2 ans say morom bayil la fi yaa ngi fàttali waaw loolu deug la mais ya. nak xam nga bobo combat boobu damaa doyalul loolooy problème wa mais noy daanee mbeur bañu sifflé ni combat bi jeex na nga continuer na da ngay bëri na da koy brouet tak yoy xam nga lima tam tàmm mbapat la muy so ñëwee boy boy sam premier combat tamit mbapat jé yu lèr nga tam jé yu lèr nga xam mu mhm. ñoo arène aduna prime ma dóor ko ñaari góor duraat mu daw yooru mhm. yaa ngi dégg ma dóor ko tànk mu dëpp waaw loolu yomb ak man torop ma ne lii dafa yomb léegi nga ne da ngay continuer waaw ma ne nag léegi arbitre bi xanaa xamoo xanaa xamoo ne arène continuer xanaa xamoo ne sa adversaire sifflet moo leen di boole moo leen di tàggal bu arbitre ne prime ngeen roofoo bu ne prime jël am na c'est fini waaw loolu après xam naa loolu mais comme maam ni mu ñëwee rek ak ambulance ni mu futteekoo mhm. xam nga gars yi nekkoon ci kaw tur bi mi naan kii booy bi. kii la nag yéen la nag dafa mbapat de dafa mbapat sama kanam. daanaan la ambulance daan na fi Pape Faye Pape Faye deux Pape Faye Pape Faye numéro un. waaw daan na ko fii stade euh, euh, terrain daaru bu euh, bu Thiaroye sama kanam. waaw loolu dëgg la c'est que dama ñëw. Mhm. ñu naan ma eh, petit petit affaire yooyu noonu xam naa ne ñoom. Mhm. nin ma xamee ndax maa ngi ñàkk la woon ñàkk bëri nañ. Mhm. yaa ngi dégg. Ah. léegi xaj na tamit. ñëw na futteeku état bi rafet macha allah. macha allah yaa ya, kan? dégg <laughs> mu ñëw liggéey liggéey bu jaar yoon. te tamit mbër la. mbër la waaw. <laughs> yaa dégg mais nag xaj na mbër mu nekk kan champion bu nekk kan champion koy daan. d' accord combat bi jeex. Ah. nga am ci ndam. Mhm. ñu daje ma ne la booy mbapat ak arène bokkul. Mhm. mbapat. Mhm. affaire de waaw affaire de koñ la yooyu noonu mais arène. erreur bu ndaw mën nga ko def gars yi sanctionné la un an deux ans say morom bàyyi la fi nga ne mënoo grand bi bàyyi xel. dëgg la quelque temps plus tard ñu la kan sa deuxième combat dans l'arène. sama deuxième combat ñu jox ma booloo. booloo bu fan. Europe énergie. ma jox. Mhm. tamit instant boobu booloo mu ci dynamique bu baax. Mhm. boobu mu. père Bekaay. Mhm. ngi koy sant. ñun tamit ñu ngi sant daal di ko gërëm. ndax père Bekaay def na moom parcours bu baax. boo booloo moom tam per bakaay yuuxu na ko fi mhm. daan na fi ay mbër waaw ah, na ko xale gën a malaga nga noonu affaire yooyu noonu wax wax mhm. wax mhm. ñu jox ma ko boobu mu ngi tegle six victoire man maa ngi ci benn tegale na ay victoire six victoire la man ma jóge sama deuxième combat ñëw jóge sa premier combat sama ñëw deuxième combat jël ko ñu ne ma yow danga nga dof ak jël avance bi taala moom tam dégg na ci lu ci ne teggi na ci lu ne. waaw ah. ba mu jëlee combat bi. waaw ah. jour si arbitre sifflé. jour si arbitre sifflé. Ah. booloo moom itam maa nuyu. Mhm. waaw di la waaw moo loolu daal. waaw arbitre sifflé na moom itam comme ni mu daan def ñaari attaquant la. Mhm. mu dox ñoom ma dox ñoom ñu daje. kenn daje waaw. Mhm. ah kurba ñu takka. kuu yi daw. rëll rëll rëll. waaw ñu dóorante dóorante dóorante ba yegg ci côté saako yi. arbitre bi sifflé ñu indiwaat ñu. yaa dégg mhm. moom itam du bàyyi mhm. te man tamit noonu laa mel du ma bàyyi naturellement waaw léegi arbitre bi waaw mu doxaat mu doxaat ñu dajawaat mhm. kuy takar naa si waat yaa dégg mu dóor dóor dóor dóor dóor mu dóor man itam ñu dóor xeex xeex bu métti maa moom boo xoolee sax ci côté saako yi ñu arbitre ciblé fa la ñu arbitre bi bàyyi waat fa la ñu jàppante yaa ngi dégg bi ñu jàppantee mu dóor ay épércule ma dóor ay épércule xam nga mais lépp daanaanu kat la moom itam mais xam nan ma bëggul bëre ak man boobu moom mu ngi serte xeex bi rek mais ku amul liñ naan ku amul yaa nàmp maam yaa ngi dégg mhm. mënul bañ bëre bi ndax kenn ku ci ne xeex nan ba kenn ku ci ne ku toq mhm. xeex nan ba ngeen bëri en fin de compte mhm. ci leen bëree ma daan nga daan Boy Lo ah. nga signé sa deuxième victoire dans l'arène ah hmm, ñun ñu amoon yaakaar bi ngay mbapat ñu gën a am yaakaar ne waa ji bul sonal sa day ñëw jël lim moom arène bi day def day def benn yoon dem yoonam kenn mënu ko teree jëli cëram ci làmb ji sa troisième combat la l'arène nga am kan sama troisième combat ma ñoo am Malick Niang Malick Niang bu bu yoof ah. boobu nekk nag combat bi nga xam ne moom moo la freiné ci làmb waaw combat boobu ma ñëw def yi fi xale muy tegle naa deux victoires damay ñëw def yi fi xale. jàpp nga ne maa mën booy. waaw ma seen moroom ku taxaw sama kanam dama lay fën. ndax boo xoolee combat boobu lépp rek bi mooy def maa ngi ko defee ci cimikaay bi ma taxaw ndax bi ma jógee. suñu kër ba sa esaat li ci mu gaaw laa tax xëppoo a xëppoo a def lépp bu bi bu sifflé rek moo ko fa ba moom combat na yow da nga jàpp ne arbitre day nga jëlee ko fa waaw kay finalement dégg ma am ci déception muy erreur bi gën a rëy ci sa carrière parce que boobu mooy tache noire bi njëkk ci sa palmarès dans l'arène oui ma daal di jóge foofu noonu arbitre ne prib mhm. ma maam mu dal ci kaw mhm. boobu gisuma ndax maa ngi ñëw ci kawam rek xam nga li naan boo yaakaaree ne weñ bii tege nii ak xob la mhm. ba tax ne nga ñëw bëgg ñëwee rek jaay ko doole dem ndax xob la am nga jam la bett après combat bi dañ daje mu ne ma grand bi mu ne ko naa mu ne ma sama combat bi maa daan maam Balla ma ne ko rakk mu ne ma naam ma ne ko est ce que xam nga ki nga daan boo ko gisee tey boo ko laajaatee jëlal na lii laa ko waxoon dama ko ne est ce que xam nga ki nga daan mu ne ma nu mu demee noonu ma ne ko hey eh, da ngaa da ngaa yow da ngaa mooy da rëcc hmm. est-ce que xam nga Mame Balla mi nga daan mu ne ma kon yéen yéen a ma xamul parce que man Yoof laa dëkk ñu aussi dañoo mbapat dañoo bëri man ne ko kooku dama ko toog bu muy xale bu ndaw ndaanaanu bëri la hmm. mais sa première défaite dans l'arène mooy sa diggante ak Malick Niang si ñëw bu écrit Yoof